dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy na dalal Adama Lam di jiital confédération national des employeurs ay kàddoom ci biir yéene kaay bi wax na ci wàllu koom rawatina jafe-jafey entrepreneur yi di dund ci waxtu wi le entreprise yu bari ñu ngi tëj ndax ñàkkum koom maanaam ñàkkum koppar mëññee yaa ngi ñaxtu seen koom demeetul noonu Adama Lam bu kines ne bu sañoon nguur gi gën a saytu njëg yi leneen te doon càkkute fam ci biir yéene kaay bi di Walf Quotidien moom Adama Lam ne gi gën a jox cër maanaam gën a jox gëdd ak gën a taxaw lii di secteur privé bu Sénégal ana na mu gisee bi le législature Adama Lam ne gàcce lañ ci am ne bile assemblée nationale dafa ruslu te amuñ ci yaakaar benn yoon leneen lu gàllankoor réewum Sénégal bokk na ci wàllub corruption mi Adama Lam wax ne moo raw feebaru cancer Walf Quotidien ne analu confédération nationale des employeurs lu muy xaar ci gouvernement bi sampu bees Adama Lam ne na premier ministre jël matuwaay ci war te taxaw entreprise yeeg a bi di le vrai journal mi yeneen ak a bi di l'observateur ne premier ministre Amadou Ba ci waxtu wi le mu ngi jàkkaarloog ay dossiers yu mag ba ca jiitu jëm ci wàllu njëgu dund gi njiitu réew mi Macky bi ngir ñu taxaw ci saasi ci soxlay askan wi ngir saafara muñ cee am yéen a di Le Soleil gis ne saafara jafe-jafe Afrique doon na lu ñor doon na lu soxal lool njiitu réew bokk na ci la mu waxtaane démb ci ndajeb assemblée générale bu Nations Unies di mbootaayu xeet yi la fa dem xalaat yaa ngi fi lu ko mën a liggéey ngi fi lu ko mun a suqali mu ngi ci Afrique yéen kaa bi di l'info ne njiitu réew Macky Sall yéggee na njàmbatu Afrique waa Nations Unies xam ne mbirum terrorisme bi tàmbale am dayoo du mbirum Afrique rek waaye mbirum àddina gi la daal dina sas conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi ngir mu jël ci matuwaay leneen ci ay kàddoom moom njiitu réew mi Macky Sall ci googule assemblée générale wax na jafe-jafe yi nga xamante ñoo yàgg tënk Afrique yéen kaa bi di 24 heures ne xëy na njiitu réew Macky Sall nganam googee ca New York ndax jot nañ faa gàkkal deram ñenn ci doomu Sénégal yenn ci Amérique ak seen pancarte ak seen morso xonk cuur jot nañ fa amal teende falu ñaxtu Ousmane Tunkara ak ay ñoñam xamal àddina gi ne njiit réew mi Macky Sall dafa salfaañi ak ak yelleefu doomi aadama yi fii ci Sénégal yéen a kaabi di les bu dee fii ci assemblée nationale ak quatorzième législature bi le gisaat nañu démb lu doy waar ci pencum ndaw réew mi daanaka lu toll ci juróom-ñeenti waxtu ci loo xamante ne defuñu fa dara lu dul di xiccoo ay poste maanaam ay ndombol tànk ci commission yi kenn ku ne bëgg a bi yéen a kaabi ne bu dee commission affaires étrangères fa la coow la newoon waaye na ko bàyyil waa coalition Yewwi Askan Wi ko jiite yéen a bi di réew mi quotidien ne yooyu la commission samp ci assemblée nationale benno bokk yaakaar moo gàddu lu toll ci juróom-ñaari commission yeewi askan wi gàddu juróomi commission wàllu sénégal gàddu ñaari commission député Thierno Alassane Sall la fekk ci biir yéen a bi news ne xew démb ci assemblée nationale dafa ruslu ne gàcce la ci mim réew ana coppite yañ doon gëmloo askan wi ne saay bu ñu faloo ci assemblée nationale askan wi ay kàddoom ci direct news moom Thierno Alassane Sall gis ne bi le assemblée moo gën a yees yi fi woon yéenekaay bi di Tribune xëy duñu xaymaal li mu accident yi fi jota am ne ci diirug fukki fan ne lu toll ci fanweeri doomi aadama ak juróom-benn faatu nañ ci accident yéenekaay bi am ñu joxoñ baaraam chauffeur si ak seen apprenti yéenekaay bi réew mi quotidien ne chauffeuru camion bi le def démb yéeme na lool yéenekaay bi ne ba saaraan ca Védène kan mooy freiné yile camion waaye ana kan mooy daan diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang ñaari mbër yi daañu sëgg ci combat benn fan ci weeru janvier 2023 ñoxobaay microcentral ma ngi cay joxe xalaatam jàpp ne ci googule combat Balla Gaye 2 du favori ci kaw Boy Niang 2 waaye saay bu arbitre lu ne mun naa tukkee ci googule combat waaye ana lu tukkee gum ci match xarito gi Sénégal di waajal diggante mag Bolivie génn cabinet lu mat a càmbar ci bile équipe bokk na ci wàllu attaque bi neuf yeeg ailier yi faw Aliou Cissé càmbaraat ko maanaam defaraat ko bu bëggee jëlee ndam ci bile match xarito l'attaque Takatar 2022